donc euh, voilà tey maa ngi fii donc ci conférence de presse bi mais nag gàcce lañ ci amaat à chaque fois parce que ñoom gis ngeen euh, intersyndical bu RTS muy CNTS ak saa ñuy wootee conférence de presse déjà dañuy convoqué tous les agents mais gis ngeen déjà li fi nekk personnes ñun ñoo ko feesal déjà donc euh, ñun lu ñu métti c'est très simple mooy à chaque fois bu ñuy wootee conférence de presse ñoom dañuy semer terreur ci RTS dañuy wane ne sénégalais yi maanaam jàmm alors que ñu ngi ci suñu jàmm on a un bon DG boo xam ne vraiment ñun kenn yónni mu ñu que ça soit bien clair agent la on a fait 17 ans à la RTS Racine Talla fii la ñu fekk te incha allah rabi buy dem tamit fii la ñu bàyyi tamit parce que ay ndaw ñu mais tamit mënul supporter mooy ñu am bu mel ne Racine Talla nekk trésor vraiment mun naa joxe exemple boo xoolee te RTS c'est la seule chaîne en Afrique de l'Ouest buy divisé en HD migration HD boo xoolee également actuellement on est en cinq télévisions stations régionales yi am nañu RTS 5 Matam barki démb bientôt 6 saint loolu ay avancement les salaires sont payés à temps le 27 ñu fay salaire yi avant si waxi noppi RTS amuñu benn souci wax dëgg yàlla amuñu benn problème mais ñii ku leen déglu tu te crois que RTS mu ngi RTS mu ngi mu RTS stable nekkuñ ci jàmm te alors ci jàmm ak salaam. syndicat bi ñu créé bi nga xamante ne du ñun ñun sax ko créé yi nekk ci ku ne xam na ne RTS c'est national RTS par exemple c'est pas Dakar on est huit. on a 17 stations régionales et euh, stations régionales ci euh, région yi. boo boole yooyu yëpp déjà c'est di personnel boo xamante ne macha allah donc dafa bari. mais la yàlla bala yàlla dog. lan nga ñuy indil ci leeral ci euh, dafa am foofu faluk yaa ma neex ak ma neex ak li nga xam ne maanaam mooy maanaam démission yu bëri yi nga xam ne. Mhm. lan nga ñu ci indil. franchement démission man yëguma ko franchement gisuma démission RTS ku ne am na yoo xam ne xel nangu ko. RTS ku fay liggéey ñu embauché nga am kayit bu leer liggéey nu mu jëfee Sénégal nga ne da d'accord ma disponibilité am nga droit def ko disponibilité dara ne ko ci am na ñuy def disponibilité dem États-Unis am na ñuy def disponibilité parce que dañ leen woo ci ay yenn bërëb peut-être yu gën a bakkane ci ay ONG ak ñoom seen te loolu ay benn benn la loolu kenn kenn mënu ko bañ man comme par exemple je chef unité divertissement